asalaamaaleykum mbokku téléspectateur u Leral TV ñoo ngi leen di nuyu joxoon nañ leen nag dig daje newoon nañ leen dinañ leen indil beneen ndaanaan ndaanaan bañ leen waxoon nag moo ngi nii tey ci këru kañ lañu teew ñoo ngi nii tey ci kër koo xam ne Sénégal yëpp namoon nañ ko lool waaye nag indil naa leen ko ci suñu émission leeral jonge kooku mooy kan kooku mooy maman Gentille maman Gentille nuyu naa la chérie waa chéri maa ngi lay fay di kontaan lool nag ci ñëw bi ngeen ñëw seesi ma waa Leral TV dootoo ko defati tey du man nga seesi maa ngi ni faax laa ilaha illallah duma arrière mm. damay sës ci miir bi <laughs> voilà ba tey mbokku téléspectateur u Leral TV dégg ngeen euh, li maman Gentille wax nee na nag moom daw ci Sala Yaay Nder euh, ku ci dawul nag Sala Yaay Nder yaakaar naa ni da ngay ñëw ba sës ci man rek man mi présenté émission Leral Jongué euh, maman Gentille tey nag suñu ñëw tey suñu émission mooy Leral Jongué maanaam dañuy dugg ci këru sénégalais yi di xool jigéen ña nga xam ne ñëpp am nañ ñi yaakaar ne ñii jonge nañu jonge wuñu kese ci ay bët wala ci ay waxin dañuy ñëw xool ci nu ñu jongee seen biir kër ndax sénégalais yi léeg dañuy jaawale ñaari mbir célébrité ak jonge ndax dañuy yaakaar ni képp ki nga xam ne tey yaa ngi feeñ ci tele yi ñu ngi lay seetaan sénégalais yi xam nañ la yow mënoo dara ci sa biir kër yow génn ci tele yi rek nga mën maman Chanty est-ce que yow jonge nga. Ah, defe naa jonge naa nag. te it wóolu naa sama bopp. Mm. te boo laajee sama waay di nga xam ndax jóge naa wala déet. Mm-hmm. ndax du ma bàyyi lenn kenn di ma ko defal. doo bàyyi lenn kenn di la ko defal déedéet. Mm-hmm. maman Janté aw nga wala ñaareel nga. 1 2 3 4. 1 2 3 ba 4. waaw mat nga ko waaw man maay 1 2 3 4. yow yaay 1 2 3 4. waaw. waay xëy tey de déggati naa dëgg. jante ngi nii de. jante ngi nii dawul de. kii moo bëgg jëkkëram. 17 ans. Mhm. ba ma ko amee laa ànd ak moom. Mhm. fexe ba xam li mu bëgg. Mhm. mu miin sama loxo. di lekk sama lekk. bu demee kër sëram. ñu ni ko toogal añ wala toogal reer mu ni leen tàmmumaa lekk fenn. te tungu ni du teew ñu nataal. déedéet dinañ ñëw ci moom ci kanam. il faut d' abord yow ñu jàkkaarloog yow ndax yow li ngay wax c' est trop intéressant mhm. euh, c' est trop intéressant mbaa dégg nga tubaab yooyu ma yoo xam nga ñun ñun ñun neex rek lañ koy waxee. <laughs> waaw ñun ko sentiré rek. ko sentiré rek dañuy cof di sànni. Mhm. maman Chanty comme tey yow ñun dañoo ñëw sa kër. Mhm. seet si la pour ñu wax ci jonge waaw nga leeralal ñu jonge jigéen bu jonge nan nga koy gisee rek nga xam ne ndaw siy jonge na. yéen maa leer rek a may laaj lii. ñun ñoo lay laaj est-ce que xam nga ni jonge mm-hmm. dafa am lu koy jiitu avant jonge di génn. téléspectateur u Leral TV nañu gën a dégluwaat kii di maman Gentille nee na balaa jonge dafa am leneen lu jiitu jonge bi d'abord kon moom nañu wax lan moo jiitu jonge bi. xam nga lu jiitu jonge mm-hmm. muñ. Mm-hmm. gis nga boo muñul. loo jonge jonge jonge jonge sa jonge du feeñ. boo dul muñ. boo dul muñ. luñ la defee lu la naka rek lu la neexul yëpp. nga wanaasu ko ndax tey préparé naa sama jëkkër. Mhm. fexe ba xam li mu bëgg ma togg ko. Mhm. sama jëkkër ñëw rek énervé ni ma lan moo tax nga teg fii daal. Mhm. te góor des fois day génn xolom du neex buy ñëwaat këram. nga won ko ni ko fii laa koy teg. waa la nga defoon dina feeñ. dama naan ñoo jël daal di teg fee. ni la damaa muñ damaa juum papa. xaw ma sax ni teg naa fi daal bi wanaas loola naqari ba génn sa jonge muñ mooy jiitu jonge ñooy ànd boo bëggee sa jonge neex muñal lu muñul doo ko fa fekk jigéen mm-hmm. dafa war a fexe fexe fexe ba def jëkkëram xarit est-ce que xam nga ne awma xarit barke Cheikh Al Khalifa ci télé hmm. bu ma kenn mere nag ak bari ay sopp. Hmm. ak maa bëgg ñu ànd ak man. Hmm. ak maa bari ñu bëgg fréquenté ma. mais jigéen balaa wuti xarit fenn. na jël jëkkëram def ko xarit ba pare. man sama sang bee sama xarit njàpp ma ca tey ba maa géwoon ngoone ji. di bàyyi Mohamed ak Sophie Ndiaye ak Mbaas sama yaay lu ma neex moom laa koy wax. lu ma naqari moom laa koy wax bu ma stressé mu stressé la macha allah. Mm-hmm. ànd bu yàgg dëgg la jigéen. Mm-hmm. war naa fexe ba xam ay couleur jëkkëram waaye lu sa jëkkër gën a bëgg nga ni man ah sama jëkkër de bañu dara mm-hmm. bëgguma loolu. bëgguma jigéen ju toog mel ni boobu néew yi nee na jinax day bari pax waaye jigéen moo war a bari ay pax. Mhm. fexe it ba xam sa paxi jëkkër. Mhm. xam ay xeetu parfum mhm. xam li ci moom bu ne tël nga xool kii ban kanam la indi tey te sama sang bi tubaarkal la macha mooy bàyyi bàyyi jirim yi damaa teel a ñàkk yaa teel a ñàkk baay mm-hmm. muy sama yaay di sama baay di sama lépp tey jii bu ko Macky Sall xëccoon teg ko ca pale ba mm-hmm. kon buur laay doon waaw kon yaay raw may Marème Faye Sall barke Khalifa Malick duma ko laal waaw duma ko jege fenn <laughs> ndax lu gën a baax man la ko yéene lu gën a neex man la ko yéene moo tax ma yërëm ko. Hmm. dama koo bëgg ba yërëm ko. ndeysaan waa ñu ne nag bëgg ak yërëm a ànd. waa dama ko bëgg yërëm ko. voilà téléspectateur u Leral TV dégg ngeen lu maman Genty wax ci borom këram gu baax googu euh, mooy Bour Gueweul euh, ba tey maman Genty duñu mus a ki teg yow. dégg la euh, dañuy ñëwaat ci yow. waaw parce que tey dama dugg sa néeg. Mhm. ma gis ay xeeti baax baax ay ndaali cuuraay ak ay pompe ganaar ak. law xam ne man mosuma koo gis ma maman Genty loo xam ci jigéen xam nga léeg ñun jigéen dafa am jigéen ñoo xam ne ndeysaan euh, nañ ma baal ci kàddu gi dañuy dañuy xaw a am xet buñ la rombee rek xet bu ñuy xeeñ du la neex waaw ci sàggante la wala ci melukaanu nit ki la wala ci ñàkk farlu ci sa bopp ñàkk farlu am na ci loo xam ne nag mhm. dañ koy judduwaale ah, maanaam xet xet moo tax ñu ni soo amee doom mhm. fexeel ba première sang ba na set wecc ca juddu ga dindi sobe bi yépp mhm. mais am na ci ñoo xam ne mhm. dañoo tayal ci seen bopp dañuy toog rek mel ni mbaxalum kayit mbaxalu kayit waaw toog ni yàcc gis nga jigéen mhm. warul a jege jëkkëram di dégager benn xet bu dul lu neex mm. dangaa war a toppatoo sa gémmiñ gi waaw buñ la fekkee salaamaaleykum maaleykum salaam kanam a koy wax waaw ay ree waru laa bett waaye bala ngaa ree di bomb say bañ pourquoi nit day defaru mm. di xeeñ neex mm-hmm. di jege jëkkëram man jigéen laa mm-hmm. mais am na jigéen ñoo xam ne boo leen jege dangay ngay defe ne dañoo bokk cuuj cuuj bu dee <laughs> cuuj menn mi cuuj menn mm. seeni yére di tilim mm. te xam nga ñun macha allah jigéen dafa gaaw am yaram. waaw tey jii bu ma amul woon tuuti sag ci sama bopp rek. Mhm. tayal rek du baax. waaw ndax yàlla dafa dogal damaa am yaram macha allah. Mhm. waaye nag ah mosuma jege sama sange bu mun ma puusal de. te yu baax laay xeeñ. yu neex man kay yooyu gis naa ko gis naa ko ci néeg bi gis naa mbere mbese yu baax yi. waaw yow yooyu rek nga gis sax. yooyu rek laa gis man yéegalu ma ci néeg bi ci kaw. waaw. ndax foofu néeg papa la. néegu papa waa néegu papa moom kenn waru faa dugg. foofu néeg papa néegu papa <laughs> néegu papa nag waroon nañ koo yër. yii euh, la. waaw euh, maman Gentille dafa am loo xam ne tamit tey ñun jigéenu Sénégal ñu ngi ciy bëgg a rey suñu bopp. Mhm. bu yaboo ñu ne ñu ngi ciy gaañ aussi suñu bopp. Mhm. safal bi ci dëkk bi maanaam safal bi nga xam ne jigéen ñaa ngi koy utiliser. safal gi mu ngi mu ngi andi cancer bi safal gi mu ngi indi ay maux de ventre safal gi mu ngi indi lépp li nga xam ne tey jafe-jafe li jigéen di jànkonteel ci biiram lan moo waral jigéen ñi di utiliser safal googu. ñàkk gëm seen bopp. ñàkk gëm sa bopp. xam nga jigéen day gëm boppam. Mm-hmm. jigéen day wóolu boppam. Mm-hmm. gis nga bu fekkonte ne yàlla danoo wàcce. Mm-hmm. ba pare tegaale ci nag dee leen safal. waaw waaye yàlla danoo bind ba pare. bind ñu nam ñu war a binde mhm. def ñu nam ñu war a def am na ci loo xam ne nanga baal ma jigéen laa de te ci télé laa ne mhm. mais am na ci loo xam ne mhm. jigéen ñu bari ñu ngi koy def yàqu moo tax ñu koy def jigéen day yem ci jëkkëram hmm. jigéen day yem ci jëkkëram waaye tey yaa ngi fii suba yaa nga fële hmm. taxawaalu ba sa xol sedd am Abdou Gueye fore la fële mhm. nga ne da ngay sa bopp Abdou day xam lépp ba pare bàyyi la ci daaj hmm. bés bu gisee ku ne kepp ne hmm. butéel hmm. mu bàyyi la fa jigéen ñi nañu réglé safal xam nga ku mu jig cin li nan koy def ci cin li waaw mu safal ci <laughs> cin li ah. jigéen na set ci biir set ci biti jël saabu ordinaire bi defaru ba normal te nu ba safali saabu ordinaire bi sangu ji rek lañ ciy yem wala. dañ ciy raxasu. ah dañ ciy raxasu. da ciy raxasu. Mm. defar sa bopp ba normal. Mm. looy wuti safal. Mm-hmm. safal dañ ko baax cin li. Mm-hmm. nanu bàyyi safal bi ak cin li. nañu bàyyi safal li ak cin li. waaw waaw. bàyyi nañ ko cin li. voilà mbokku téléspectateur wu Leral TV xam ngeen ni tey suñu émission leeral Jonge dafa ala daw mi ndax pour la première fois tey jëkkër taxaw en direct seede ni jabaram dafa jonge kon tey xam naa ni tey suñu émission leeral jonge ñoo ngi koy soog a am euh, nee nañ nag tungu ne du teew ñuy natable tey kii di jëkkër borom kër sang maman Janti ñu gën ko xam ci buur géwél tey moom moo taxaw nee na carrément dafay seede ni jabaram dafa jonge kon xaw naa fii wàcc na ba zéro jox ko micro bi mu seedeel ñu. waaw léegi kon dama leen ko bëgg a waaw daal di jaagar jaagar di ko reer. Hmm. ndax papa daan waaw bàyyi mu témoigner la d'abord ba pare mu xamal ñu kan mooy maman Janti ndax nee na jël na la à l'âge de 17 ans. dégg nga loolu. waaw papa jëlal buur géwél nuy nañ la. <laughs> Eh, fay nan la. sister Kumba. Mm-hmm. siyaar nan la. jërëjëf eh, nuyu waa Leeral TV yëpp. Mm-hmm. Eh, di nuyu waa adduna bi. Mm-hmm. rawatina nag sama mbokk yi nga xamante ne dañu nekk Amérique. ndeysaan nekk Suède nekk Hollande. ak Allemagne. Danemark defe bu ma limee sax damay. da juum waaw. mais il faut que ma wax rek waa Italie ak ñeneen. di nuyu nag waa Sénégal. mais ci biir nuyoo bi nag dama am habitude nuyu. kër si Ahmed Tijane. parce que ñun faran bokk. donc bu may nuyoo dama ci tudd kenn rek. muy sëñ mbay Sy Mansour. sëñ Mbaye Sy Mansour. yàlla na ko fi yàlla gën a bàyyi. amiin te wéral ko. moom yi suñu wasila la. boo xasee ba nuyu sëñ Mbaye Sy Mansour nuyu nga ñëpp. di ci nuyu ci jigéen ñi kenn rek muy soxna Lalla si. Mhm. ko damay nuyu góor nuyu jigéen. moom mi nga xamante ni. moo yor fondation euh, bi nga xamante ni moom la baayam yoroon suñu mhm. Abdou Aziz Dabakh mhm. man ma yore chargé de mission bi mhm. euh, nekk communicateur bi euh, di nuyu nag sama xaritu mërti tijaan yi laayeen yi baay faal yi ba ci sama yi nga xamante ni dañu maa sob ndeysaan waaye nuyoo bi yëpp nag ki ko moom mooy Mama Genty nuyoo bi yëpp maanaam lu ko wund Mama Genty la moo ko moom waaye comme que télé laay waxee te ci biir tele yi dama am ci koo xamante ni soppe la. waaw. yàlla jële ko fi. Mm-hmm. yàlla na bàmmeelam di gën a yaatu gën di leer. amiin muy sama xarit benn Bass Diagne. Mm-hmm. sama soppe. waaw koo xamante ni bu ma yàlla tàggoon du fi jóg. billaay waaye kii fi nekk di Sidi Diagne. Mm-hmm. ak frère am yi. yàlla na leen fi yàlla gën a bàyyi. amiin amiin barke euh, ma bëgg a laaj. maanaam ndax mama jonge nax. waaw. wax bu yàqu ngay wax doo wax laaj leneen. damay laaj laaj laaj la damay laaj rek ndax maman Gentil jonge na ndax maman Gentil wax na fi teg na fi indi na fee tegal nañu lee waaye nag comme tungu ne du teew ñuy na table ñu laaj la yow mii di borom këram. ci kenn rek laa koy jël boo ni woon tey jii ndax sëñ man sëñ Mbaye Sy Mansour Tidiane la. Mhm. di jaaxal ñépp waaw. baa nga ni géej ndax am na ndox. Mhm. maman Gentil. waaw bi yàlla bindee jonge. waaw. ba mu war a wàcc ci doomu aadama yi. Mhm. ci moom la ko tàmbalee. ci mama mi mama mi kon ku joŋee rek moo la ko jàngal boo ko gisee boo ko gisul. Mhm. lu laa lay wax. maanaam ku joŋee rek na dem wari mama. boo ko gisul doo mën a joŋee. Mhm. ngay góor ngay jigéen nag ba ci man mii joŋee ñi ne ci man. waaw moo ma ko jàngal. parce que li tax ma joŋee. waaw man damay fekk mama ci biir waañ wi. waaw ma ñëw di ko jàppale. nga di ko jàppale. bu baax ah, est-ce que loolu tamit bokk xam nga am na góor léeg-léeg am na góor yu rëy. yoo xam ne ñoom pour ñoom seen jabar bu nekkee ci waañ bi ñu dugg fa sax xoolal ko li muy def ci waañ bi sax ci ci ci ñàkk ci nga baal ma ci kàddu bi ci ñàkk fayda la bokk. waaw kon day man de ñàkk fayda ndaxte. Mhm. te defe naa ne ñàkk fayda googu kon xam nga fu ma ko tàmmee fu ma ko jëlee. waaw ci sama baay. Ah. di nuyu waa Taïba Ndiaye yépp nag. waaw foofu nag mooy sama Amérique. Mhm. waaw alelo. monsieur le maire maa ngi lay nuyu. ndeysaan. Euh, dama wax ni sama baay dama ko fekk muy bale. Hmm. dama ko fekk muy raxas. Mm-hmm. dama ko fekk muy fóot. Mm-hmm. ma jàng ci moom. gis musul dóor sama yaay. gis mm-hmm. musu koo saaga musu koo xas. ma kii kat kon li muy def lu baax la. waaw ci loolu laa jóge ne ci joŋe googu nag. téye ko nag bi nga tax yàlla defee nag ma takk ma gentil nag. à l'âge de 17 ans ba nu ngi ci 35 ans de mariage. 35 ans de mariage. di ñaan yàlla mu cent démarre 185. amiin. dama wax ni. Mhm. soqal naa ko. dëgg la. Hmm? billaahi soqal naa ko. soqal nga ko dugub menn mi dugub. Mhm. ànd na nit muy taw. waaw. ma ni du dox ci ndoxum arbis ndox mu salte mii. Hmm. ma boot ko ba nu egsi ci kër ga. Mhm. bu mu musaana tëddi nelaw bu ko papaam soxlaa dama naan ko bakko ba mu nel yeewu wala nga wax ma li ko soxlaa ma defal la ko waa kay te pourtant maa ko takk mhm. maa koy jox waaye jigéen du esclave déedéet gis nga li jigéen war a defal jëkkër mhm. noonu la ko jëkkër war a defalee euh, jabar jabaram ba pare wàññeeku nag def sax au mm. gis nga kii mhm. damay wax ne daf maa fekkoon ci lëndëm dugal ma ci leer. mu yóbbu la ci leer. parce que lu tax. waa ñun góor ñi dañoo tërërëri. Mm. dañuy càpp fii ni cuur ni càppet ni fële. waa muy gis loola ba ma ko takkee ma di ko def. waaw mu di ko muñee. bu ma tëddee ba xaaju guddi mu yeema. Mm-hmm. ne ma moo ne de fa nga jaaroon wala fa nga demoon. Mm-hmm. gis naa la fa may bëgg a weddi mu ne ma ba nga fa demee nii la nii ak nale. ma xam ne lu mu wax dëgg la man ko maa ngi jégalu. te du ci xuloo ak yow. maa ngi jéggulu mhm. mënoon naa waxee ton dur mhm. nu xuloo baa nu xeex mhm. musul noo xeex musul jël bagage yi fay waaw musuma saaga musuma wax lu ñaaw musu koo wax sama ndey musu koo sama baay musu koo wax samay mag ba samay doom roy na ci moom roy goo xamante ne tey ku ci am jëkkër di nga xam ne ni nga war a sëyee ma gis loolu mu may wax ma xam ni kii kat mu may duma te saagawuma xasuma mhm. ah ma ne nag kii waruma gën nag tax fu ma daan taxaw ngir ànd ak jigéen mhm. wala may def naka sudul noonu mhm. man ko fa teg woon ko nag ni ko nag maa la indi ci kër gi nga war di fóot di toog di paas di def lépp dama lay jàppale parce que nit nga ni man da ngaa bàyyi sa ndey bàyyi sa baay bàyyi koo mu xam ñëw fekk si ma te xamu dëmm laa wala noo xoor laa wala lu mu mën a doon. waaw kon kooku bu ñëwee ci yow. Mm-hmm. da koo war a sagal aj ko ca kaw. te nag yemunu foofu de. Mm-hmm. bu ma tëddee ba xaaju guddi. waaw daf ma yeey jox ma njar mu sedd guy. menn mi soow. waaw ma defe ni fa lay yem. <laughs> Mm. mu fóon ma ci lex bi foor ma ci lex bële. waaw. <laughs> ni ma nag eh, dañuy nelaw wala nelaw ma ne ko du nelaw. duñ nelaw dañuy waxtaan waaw. dañuy waxtaan ba fajar. Mm. waaw bu nu waxtaanee ba fajar. waaw daal di julli. Mm-hmm. soog a tëddaat. Ah. waaw. waaw. lépp lu ma nar a xool ci jigéen di ko seeti. waaw mën na ko gis nga ko ci moom. waaw macha allah. loolu xanaa xamul man damay damay damay damay damay damay jël kii. Euh, loolu sunu maam yi daan def sunu yaay euh, gongo. gongo damay gongowu. waaw damay cuuraayu. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. Euh, lépp di sama yaram te moo ma ko jàngal ba bu ma génnee. waaw sama moroom góor bu ma taxawal. wala jigéen fu ma taxaw. dañu mm. tax naa ma métti sans bien. waaw ma ne leen maman Janté ma ko def. Mm-hmm. waaw waaw. waaw est-ce que léeg-léeg nag euh, maman Janté da tànnal ay ñaw. parce que léeg xam nga léeg-léeg ñu ne góor kii dafa man a sañse. waaw kan moo koy sañsel est du jabaram. waaw mooy li am. waaw parce que léeg am na góor ñoo xam ne du ñu bëgg seeni soxla di leen tànnal ay sañse mais yaakaar naa ne na góor bu ñu buñ ne ci mbedd bi mën nga sañse rek sa jabar moo lay tànnal ay sañse. gis nga ñun jigéen ñi dañoo bëgg lu rafet. bu góor génnee. Mhm. te sañse wul. waaw. mën naan koo bañ a wax dara waaye te naan jabaram toppatoo ko. Mm. bu nu tëddee. Mhm. dana naan suba li ngay sol. baa mu génne ko teg ko. Mhm. bu ma xeer dama xam ne lii laa war a sol. ba ci li nga xamante ni moom laay jiital daf may génne ni ma nii la demee nii la demee. Mhm. dafa def ay couleur tubéy bi may sol. waaw ci biir. waaw boo simis bi ci kaw. <laughs> wala ma bi ci suuf. waaw waaw. yi may sol. waaw verre la. montre yi spécial la. waaw lépp lu may takk ak lu may sol daf ko. organisé. Hmm. kon moom ci boppam dama ne ku bañ a soxna. Mhm. di la wax lii ngay sol. no boo génnee nit ñi jéppi la. waaw waaw ah, te dégg naa ko ci biir wax sànq. Mhm. question boo ko posé. ci mhm. jigéen ñi. yu ñuy utiliser. waaw ba mu leen di jural musiba. ay musiba moom xam nga lu ma koy gis mu di ko def. la saabu ordinaire ba mu la. moom lay sango sangu bu paree cepp lay jël. di ko sangoo. Mhm. muy xeeñ ci yaramam muy neex. muy neex muy jël digg ji. waaw di def bain mais gis nga bu ma xasee ba lëng ko. waaw dootuma ko bàyyi non julli day jot sax ma ni yàlla man dégguma ah. <laughs> la waaw loolu neex na ce témoignage ak maman Gentille rafet na maman Gentille kontaan nañ ci papa euh, ni mu ñëwee tey. témoigner jabaram ndax loo xam ne yombul la tey góor taxaw ci plateau ci émission ci télé surtout télévision bi nga xam ne mu ngi mel ni télévision leeral TV dara la ndamatul ci Sénégal ndax leeral TV euh, ci émission leeral jonge mu mu wax jonge jonge bi nga xam ne soxnaam jonge na ko maman Genty papa nag nu mu nu mu nu mu papa il faut nga wax ma nag tamit papa na xam nga papa la moo tax papa nag moom papa nu mu mel moom. baax. barki yonent bi baax mm-hmm. lool. Mm-hmm. ñeme njaboot torop. Mm-hmm. ñi may àndal. ñi ma sëyandool. ñi ma maaseel. waaw man la ci sama jëkkër njëkk a jëndal kër man la ci sama jëkkër njëkk a jëndal oto. macha allah jëndal la kër teg ci oto. keroog ba mu génnee oto bi. waa am ñu koy estobe. mu ni leen oto bi sama jabar laa ko génneel. kenn du ci dugg. te moom duggoogu ci ñeme njaboot mm. uuf ma waaw uuf samay rakk mm-hmm. uuf samay mag mm-hmm. ndax man damay sama taawu yaay bu jigéen mm-hmm. keroog bu ñu ma ko mayee la ko sama yaay ne yaay taawu néeg bi mu taxawee noonu kii bu ma defoon lu ma naqari sax ma muñe ko téye gi ma téye ak respect gi ma jox ak yërmande gi mu am ci man mën a sonn ci man di daw ci man nag dégg nga léegi bi ma naan ko buur ana sama oto bi. Mhm. dafa am pièce bu ñu may monté. Mhm. ba mu jógee ci liggéeyam ba tey mu nga ci sama oto bi de xool bëggul dara lu ma naqari bëggul sax ma génn ci naaj bi. Mhm. waa boo amee ko mel noonu. téye ku am sa nit. téye ko ko waaw. xale yi nee nañu. boo xeebul sa noos. kenn dàqu noos <laughs> sama sang bii. Mm-hmm. kenn gënu ma jëkkër. waaw waajaa ngi nii. waaw. man pour man. Mm-hmm. góor ñépp ay photocopie lañ original baa ngi. kese <laughs> waaw. <laughs> bëgg sama doom yi bëgg sama sëti. téye sama goro ba. Mm-hmm. di ma noyyee. di dégg lu ne ndax man. léeg-léeg ko da ngaa ragal sama maman Jeanne mu leen ndokk. ndokk waaw ndax sénégalais dañuy jaawale ragal. ak respect ak bëgg. Mm-hmm. Mm-hmm. ku bëgg sa jëkkër. respecté la mais nit sa jëkkër respecté la. da def ni man. Mm. riigu riigu. riigu rek. riigu kese. fu ma bàyyi. Mm-hmm. foofa la may fekk. barke yonent bi fu may dem. xam na ko su ma àndul ak moom it xam na ko. ñëw naa ànd seen yaay ñu naan am na ni léegi jàdd na koñ bee mhm. mu nga ca kër kee mi ngi maa ngi mhm. mooy sama xarit ak samay doom mhm. ku bëgg ànd ak man ci loolu ku jëlul sa jëkkër def ko xarit man sama loof mi. Mm. mooy sama xarit. mooy <laughs> loolu neex naa dégg voilà sama loof bi mooy sama xarit. mooy sama xarit waaw mooy sa xarit. waa xam ngeen ni suñu émission Leral TV euh, tey maman Gentille mooy suñu invité pareeguñ ci moom nag ndax tey yaakaar naa ni cité bii mu dëkk fii si Petit mbaaw ñëpp takku nañ nee dañuy seede mbaaxu mama Gentille ak jonge gi maman Gentille jonge ndax nee nañ nag mooy jaay yokku mbëggeel léegi nag avec ça. ñu fekk ci doomam boo xam ne macha allah moom tamit euh, koo xam ne sénégalais yi tey du ñu laajte koo koy kan kooku mooy kan kooku mooy Nasira Ndiaye Nasira Ndiaye nag moom tamit dañ koy dugal mu ñëw témoigner lu rafet ci yaayam sànq ba tey mu ngi taxaw ci buntu bi di buuxante uniquement ndax bëgg a dugg wax lu baax ci yaayam xam ngeen ne nag lu duuf li du xajul ci cin li euh, yeneen yeneen ñeneen ñi nga xam ne dañoo bëgg a témoigner lu baax ci Mama may leen Nasira mu dugg si mu témoigner mbaaxu yaayam ak maanaam papam Euh, tey euh, buur géwél mu waxal ñu daal ñaari waay juram yi Nasira nuyu nañ la nee nañ la bismillah voilà euh, naas toogal waaw taw jigéen bëgg yaayam jongo ma masha allah rafet kaar <laughs> voilà téléspectateur u Leral TV li ma leen waxoon rek Nasira a ngi nii euh, moom itamit muy xale bu féroce xale bu jong xale boo xam ne dafa bëgg boppam sañsa rek ci sañsa rek lay dox nag Nasira nuyu naa la. voilà maa fii ça va. ça va bien maa tey sa yaay la ñu seet si woon. Mhm. ci émission wu leeral jonge mhm. maanaam mu leeralal ñu jongeem sa papa ñëw dolli ci leneen loo xam ne sax tey sénégalais yi xaaruñu ko ci woon. Euh, yowit nga ñëw. comme ni ma ko waxee rek cité bi yëpp takku ne dañuy ma maman gentille baax bi mu baax. Mhm. ak yokku mbëggeel bi mu nekkee ci koñ bi dégg naa ñaar ñu xuloo sax day ñëw di leen juboole. waaw ah, loolu moom dëgg la juboole waaw day ay nit loolu moom dee nañ ma ko bala maa ñëw ci cité bi. Euh, kan nag loo looy seedeel sa yaay diggante mag sa papa. d'abord dama lay nuyu. Mhm. di leen nuyu ñoom tamit di yeesal bu baax sama njébbal ci ñoom. Mhm. ndax mën naa ni ñoom ñooy samay gàllaaj macha allah. sama yaay li may ci moom bari na. amaana su ma koy wax sa émission bi de mën na jeex. Mhm. te duma ma pare. ndax dafa nekk euh, yaay ju baax. Mhm. ku responsable. Mhm. ku téye njabootam. ku fonk sam aussi. ñun bu ñu bëggee sam fonk ko sax mën naa ne sama yaay moo tax. macha allah. bi ma juddoo ba léegi maa ngi ci ay loxoom. ba ma am fi borom kër. ba divorcé ak moom. teewul aussi maa ngi ci ay loxoom. Mm-hmm. sama yaay tàyyiwul ci ñun benn yoon. su ma yeewoo fekk mu génn sax. Mm-hmm. dama naan sama sœur yi sama yaay fu mu dem. Mm-hmm. ñu ma da doon nelaw moo tax génn na damay am lu ma naqari wallaahi anzim mbàkki sëriñ Babacar. su ma sañoon fu may dem ci àddina ma ak moom ñooy ànd ndax loolu la ma tàmmal nit ku baax. nekk taalibe sëriñ Babacar Si mhm. fonk waxtu bi juróom mhm. lu muy def ba ñu nodd mhm. bàyyi na ko bu cinq heures mi ngi ci kurosam di def wedd taalibe cheikh li nga wax aussi dama ciy revenir ñaar ñu xuloo mu jubóole leen bàkki sëñ Babacar Si su ma waxee ci kaw sax mu ne ma jigéen du wax ci kaw su ma génnee tàggoowuma damay tiit mm. parce que sama yaay yaruñ ci loolu yar nañ tam ci dëggu suñu fenee mu ni dangeen ngeen di fen mhm. tàmm lu ñu àbb tàmm lu ñu ñaan ñun moom àbb doo ñun moom rek lañ xam mhm. su ma jëndee eau bu bees wala jiin bu bees sol ko gisu ko moo ko solee mu ne ma li nga sol moo mokk mhm. wallaay anzim <laughs> dafa xam sama lépp maak samay sœur ak sama frère bi bi nekk ci kër gi waaw vraiment nit ku baax la daal yaay ju baax la yaay ju baax man yaay ju ma bëgg la sama yaay bu reetaanee ma kontaan bàkk sëriñ Babacar sama xarit la wallaahi te ni ma mënee nenga nenga noonu la ma mënee wax dëgg mm-hmm. bis boo ma fekkoon mu may wax dëgg nga ni juruma ci yoon rek la may teg mm-hmm. bëggul ma déraper benn yoon mm-hmm. moom moo tax xaw ma fenn waa kontaan naa kontaan naa waa Leral TV kontaan naa ci ñëw bi vraiment kontaan naa ci question yi mais question bi ma gën a neex mooy dangeen ngeen a toog at gisoo leen ma te macha allah ñëpp a ngi may laaj ma lay xamal rek ni la bientôt rek ndax euh, togg baaral da cee baax pause tam daf cee baax dama ñëwee woon doole yor sama xiir gi rek ma toog ba ci yàgg reculer tuuti souffler mais nañu xam ni maman Janti fa mu nekkoon ba tey mu nga fa maman Janti xiir gi du ko jox kenn mu ngi ci loxo mu téye te bientôt mu bégal leen ba ngeen bég kontaan naa ci yéen may waaja taaja nag sama sang bi reer njàpp ma ca tey ba boroom maam yu riisi ba naga ni boo demee tey ba ay jaamam a nga fa toog gawlo ma ci gàddaay ma sin ma botoon njaay kaay reer sa reer bi kon dañuy daal di préparé wu rek dem ca taabal ja reer yi